asalaamaaleykum wa rahmatullah mais la mi fa moo très cher mana jékki ka lele ah, ndeysaan macha allah ça c'est la musique sénégalaise la musique africaine le Don Boy de la musique sénégalaise avec Sidy Waya ne buse waay soon na bi fadam waay mais dogo ci lu ngeen ne mais xaas bu waay ali rafet na waay c'est la musique sénégalaise qui gagne la musique africaine qui gagne Ngouda dama naa la mon ami léegi ni may dogoy si suba teel yëpp xëj na maa fi gën a nekk xale booy am na ñu ma fi waaye man la yàlla daal ma jiite délégation bi ni topp délégation bi ñu ngi ko sase ci turu Makhtar Diop nga xam ne mooy président la def Soubatel moo ñu yabal ñu ànd ak euh, sunu artiste leader Sidi Diop bi xam ne sa rakk sa xarit sa doomu la jublu ci nag ci bis bu rëy ñuy tuddee Tabaski depuis des mois ñu ngi ci waxtaan di ci jëf ba ci kàttanu yàlla Zénith taxaw si di nag ni mënumaa organiser lu nu toll te mënumaa dem ci sama frère dëgg la sama mag suma doomu ndey mu ñaanal ma wala mhm. ko ci paree suma doomu ndey mu ñaanal ma. boole ko ci parrain d'honneur yi nga xam ne ñoo ñu tey. suma doomu ndey mu ñaanal ma. boole ko ci parrain d'honneur yi nga xam ni ñoo ñu tey ndax ku xam ne xam ne am na ay parrain ñu suñu lëkk yi fukki jafe-jafe yi Pape bi ci biir waaye wàllu sekk frère u Sidi ma taal ni ñu bu ngeen jugee ci Pape jugee ci Pape dem leen ci Wally ngeen jox ko l'info officielle parrainage dina invitation xëj na yar bi daf maa dogal nga jiite délégation bi du guddal ndax jarul sax muy présenté ndax xamante boo dugg seen i Fall Toulouse rek na lépp ndax 2009 ba léegi ñu ngi kon yàgg kon kontaan naa bi ma nekkee la bi sote la bokk yow naqar bi fi xewoon yaa ngi waaye ñu seet la bokk ak yow mbégte bi suma teel am war ko bokk Sénégal moo tax ñu àndoon ak suñu ay kilifa àndoon ak suñu ay frère waaye nag ànd ak bi nga xam ne moom mooy di focalu euh, secrétaire bi si donc loolu moo suñu ànd li ci des bokk lii mbir mi am na fekk na bi ma dikkee aussi am naa benn perturbation bu nekk sama diggante ak yow bu nga xamante ni ci wàllu ñeewante ñu ma jàkkaarloo yow xam naa dimension bi loolu xam naa li nga yàlla da yàlla ko def barke xaalis loolu may jàll bu baax di wax nañu am na mu leer nañ neex lool ndax suñu borom bi ngi magasin yu dajje te ci yoon leen bëgg mu xéewal leen ñu ci ci lii ñu ànd koog sa rakk ñu def def fa loo xamante si yëkkati drapeau bi teg ko bi teg ko su loxo nga teg ko ci loxol Pape Diouf ñu ànd ñëw fii Sénégal yàlla mën na ko yàlla ko yàlla. amiin amiin yaa rabbil aalamiin ñu am contentement bu baax a baax di nuyuwaat encore ñu fi nekk ñëpp kenn ku nekk di la jox sa wàccuwaay comme ni ñu ko waxee rek li olof di wax naan genn gën a gudd na waaye bu ca laal borom ñu ngeen gis waaye ki nga xamante ni moo sabab délégation bi a Makhtar Diop ko ñaanal guddal fan te yàlla amiin allahumma waaye ñii nga xamante ne ñoom la yabal ñoom ñooy ay gëtam ñooy ay tànkam ñooy lépp ñu gunge ki nga xamante ne mooy sunu frère Sidi Diop pour ñëw sees ki nga xamante mooy Waly frère ñu bokk ndey bokk taw yàlla dogal na ni nag mu jëm ci événement bu mag di ci tàllal ñëpp loxo comme ni nga ko waxee ci sunu papa Baba sunu papa Youssou Ndour papa Diouf Viviane Sidiki kon noonu la ñëwee ki nga xamante ni mooy doomu réew mi di doomu Sénégal mu bokk si Sidi Ndeye ak Baye. Mm-hmm. ñu baax di la ziar. di la jox sa wàccuwaay di ñaan yàlla suñu borom defal la. allahumma amiin di ko ñaanal sa njaboot di ko jiite ci sa soxna. allahumma amiin ñu soxna ay dara. bare sa grand doom yaa ngi grand cas. góor yi fàkk njël mais jigéen moo yor kër. dëgg la. bi di ñëwee fii dafa dafa seet. maanaam li xol li tax xol nañu dalal nañu comme ni ñuy dalalee buur xolof nag dañu pour na nag waa nii suuro bu ñu ko rey du la tax su dëgg la tey danoo bég danoo kontaan ni ñu ñëwee fii dem ko noonu kër pap bi su ñu jigee fii ci ñeneen lañuy def kon ba tax na ñëw bi ñu ñëw fii li tax mu neex na mooy danoo dalal comme ni ñuy dalalee buur jël na kenn bu la ko defee jox nga nu cër boobu ñu jëlaat ko di ko tegaat sa bopp ki nu àndal muy sunu xarit di sunu frère. tey moom nii nga xamante ni moom la ko defee ci yow génération bi mag dañuy ñëw di ñëw ba ci Sidi Diop di ko tàllal loxo ne ko danoo bëgg nga ñaanal ñu pour ñu dem sëni ndax ku nu fay na mer la nga leen la tàmbaaw mam sa rapal sa waa dana wax ni nit ku juddoo ba dee jariñu kenn kenn jariñu woo ko mënoon naa bañ a jub ñu ngi ñaan ci yàlla lii ñu jëm mu bi. yàlla ko fi yàlla defal ndam. amiin yàlla bi ndam loo xamante ne ci ay magam la njëkkee di leen tàllal loxo. ndax tey jii bu ñëwoon nga yëkkati sa loxo tàllal lu ko mu dem day neex. mu ñëw ci koo xamante ne du def dara mu wax war a wax dara wala mu war a def dara ci musique ñëw waxtaan ci ak yow. ñu gërëm bu baax na Matar suba teel sa frère. nekk nit koo xamante ne ku ko xam-xam ne nit ku am ambition la. nit koo xamante ne njëkkeewul yóbbu si di yóbbu Zénith te du ko mujj ndax moom yàlla dogal na ni xol baa rëy yàlla dogal na ni mu nekk nit koo xamante ni lu mu dugg lu nekk rek ñeme na ko kon Makhtar Diop Soubatel lii mu dugg yàlla na ko ci yàlla may ñu gërëm ñi nu àndal ñëpp nag ndax vraiment kenn rek bu ñëw yëkkati lettre ñëw indi la mel na ni membre Soubatel yëpp ñoo ñëw rawatina bi ñu ñëwee ànd ak ñu nu war a àndal ñu mat délégation mat kilifa kon mention spéciale waa label Soubatel ñi ngi leen di sant di leen gërëm na ñëw bi nag fii bu yombee dinaa gërëm mention spéciale Ndiobou Ngoye. macha allah. ndax olof nee ku yokkul ku ne yaa la yaa wàññi. dafa mm-hmm. nekk nit koo xamante yàlla moo la boole ak ci boole bu rafet. boole boo xamante ni euh, àdduna yëpp tegal nañ seen bët yéen ñaar nekkatoo leen ay xarit yéen bokk ndey yéen bokk baay te ni mu nekkee sa nit nekk sa xarit noonu la nekkee xarituma kàddu boo ko fekkee muy kaf ak Sidi Diop da nga naan kii xanaa moom Sidi ñoo bokk ndey baay man tamit noonu gis nga nit cër kenn du ko téye bu la ko joxee delloo ko. bu ma séenee li ma njëkk a wax rek ana ko. ana grand pap bëri ki dem rek. li may wax dafa gudd quatre jours. Hmm. kon loolu cër la rek. Hmm. am na loo xamante ne nag ñaasu kanam la sa mujj. Hmm. yàlla na yàlla dolli si. waaw waaw Euh, fongalameni wala ñu nekk ay xaasooke <laughs> ay sénégalais la hmm. tey kii tey boo amee ndam adduna bi fa am ndam hmm. boo amee lu ko naqari ñëpp am lu leen naqari kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom defal ñu jàmm presse bi yëpp nag su ma limee dama dul juum waaye dama dul moo tax hmm. ndax tey jii ku mel ne grand assemblée mu ngi grand fall boucher ah, zimo yaa ngi fi gars yëpp a ngi nii mu góor xam nga euh, prince ñëpp a ngi fi daal demba waar kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom defal ñu jàmm ñu gërëm bu baax nag suñu mag yi moo àndal mooy ki nga ni Père muy guddi muy bëccëg muy naaj lépp lu Sidi Diop nekk booba dara du dara mi ngi hmm. Diop seewul boo xam ne vraiment yombal na trop parce que aussi calendrier wu Wally bu demee doomu xaju bi ci aussi c'est grâce moom it dañ ko ciy remercier Wally di remercier sa staff yi quoi hmm. donc di bàyyi Père mu def jërëjëf xanaa ñu bañ a guddal mais di nuyu ñëpp ah. di sant yàlla bu baax di nuyu kàlla boo xam ne di wax alhamdulilahi rabbil alamin man damay wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax ku yokk yàlla tey fi ngeen mën ni sama xol dafa sedd la xaw ma sax lu ma war a wax ndax bi ngeen waxee rek war na jóg mais problème bi mooy. tey kii ñu seet si ñu mën a assimilé Thione Seck bàyyam moomu yàlla. moo def ñu fulla moo def ñu jom moo def ñu fit moo def ñu diin moo def ñu mën a muñ lépp ko bàyyi parce que référence boobu lañ jël ci moom moom ci tàgg la mais tey bu ñu ñëwee fii comme ni ko mbokk yi waxee. fan la ñu jëm jeune déedéet du jeune bu Sidy Diop du jeune bu Matar Soubatel mais jeune bu àdduna bi réew mi rawatina Wally Seck yow ndax mën nañu Pape Diouf mooy seen mag mën nañu Baaba Maal seen bàyyi la mën nañu Youssou Ndour seen bàyyi la mais man damaa fekkee bi mu ñëwee nga taxaw ci sa kaw chair Sidy Diop ñëw taxaw ca am lan leen non loolu dafay tëdd ci fajar caag rek ba teg sama bët suma yaram bi daw ba xaw na ma tuur xew ma Sidi di ñëw jël micro bi woy nga ñëw encadré ko ngeen kañee jël ndam li indil ko président bi mais Sénégal kontaan amul leneen li ñu def rek mooy lenn ñaanal yàlla suñu borom. nga am kàttan. ngeen àggale ñu fekke ba bés ba ñu ànd dem jeune ma taxawu góos nga taxawu bu baax te naa am per moom nga mën a ñëw naa rek li ma lay wax yéen a ngi ree mais ni kii di taxaw waa loolu taxaw na la sina kooku ñoom buuse si jox ak gars yi loolu ko mos a gis ci àdduna ma nee dañuy ànd dem ci Wally Seck maanaam sama sama xol bi dafa mel ni wala ko bon. li ma wax lépp mënu ma wax waaye fii lii am na lu ma yóbboon ci kew. kër ma ko wax naa la ko ci biir yokk nga ko fit yokk nga ko jom yokk nga ko xam moom mooy kan yonent bi nee na ab ragal am. dëgg la waaye dellu ni àndandoo yërmande ne taqañ ko mbugal nañ ànd ngir jëmi Seydina Muhammad li ma gën a jaaxal ci àdduna li coow li bari bari bari bari Waly Seck musta wax Sidy Diop lu nit lu ànd ki ma si ma toog euh, Sidy Diop toog damaa fatt ba fi nii mooy loolu. dama ko yàgg a dama ko yàgg a bëgg. ndeysaan c'est la musique la victoire de la musique sénégalaise. bu ne ko Maria Sow may sa bigé may sa bigé maar boo su gannaawam boobu. Oh. boobu moom fu mu ko tatafoo. amiin yaa rabbi alamin. kontaan naa <laughs> ndeysaan père waaye père waaye yàlla jàmm la victoire de la musique sénégalaise la musique africaine suba teel musique moo tax abim moo tax suba teel oh, allah lii rek sant yàlla te war nañ cee gën a mën mooy lii parce que xoolee ñu ngi toog ñëpp ay kilifa lañu. wallaah maa ngi si jëm fii toog moom it ñu yàlla def na sax moom sama waay la moom dañuy tollante rek. ndeysaan mais nit ku àjjana dëgg la doon dem benn mariage tax hmm. may su ma juumul ak moom ak jumeau yi hmm. da ni ma séenee noonu daf ma séen te cëpp moto bi ma ne ko déet njóogu mu cëpp moto bi dal ñun ci jox ñu suñu wàccuwaay nuyu ñu saafanteeg ñun ba pare